تيف الكرام خد الخرب بخيالي قد سرى عيني خسارة وزماني قد teg tànkam dafay présenté xalif général de Tidiane présenté fi njabootu Seydi Aji Malick muy ki nga xam seeni mooy sëñ Moustapha Sy bu sëñ Mor si jàmm si mi nga xam ne seeni tey ah góor la gi nga xam seeni moomee tam fii ba bitim réew ñëpp xam nañ ko xalifa dëkk xalifa bi da mu fay demal da nekk tànkam da nekk loxoom da nekk léppam ah kon nag ñu xam seen ni ñun am nañu gan gu màgg gu tedd bi nga xam seen moo fi tegu tey mu wóor ma ne tey leer nga ci gudump ak lu lamb gudump yëpp ndax ci daratu Seydi Aji Malick la ah am nañ ci mbégte am nañ ci kontaan daka dalal ak jàmm sëriñ bi ah ñu lay dalal ak jàmm da bég ci yoon wi trop da am kontaan te amul fu mu yem du ma mën wax sax ndax kontaan ndax jóge Tiwaawan ba ak si fii représenté fi xalifa général de Tidiane xalifa euh, représenté fi njaboot Seydi Aji Malick yëpp muy nekk la nga xam seen mbir la ma nga xam seen ni dootuñu am lu ko gën rëy ci kaw suuf ah leen nun ko muurloo ñi nga ñaan ñëpp ñëw ak ji jàmm ak si seen jàmm ñëpp delloo ak jàmm. la ñuy waxee asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di nuyu waa Goudomp yëpp. di kontaan bu baax. di kontaan bu baax. ci ñëw bi ñu ñëwaat fii. ñu ngi wax léegi ni. ñu ngi wax léegi ni. dañuy ma sow coono. ci yoon wi ci yoon wi. waaye ñëw fii. waaye ñëw fii. du ma sa nekk coono ci ñun. du ma sa nekk coono ci ñun. ndax mbégte la ñuy àndal. pour ñëw fekk fi ay soppe. pour ñëw fekk fi ay soppe. di jël suñu nuyoo yëpp. di ko jox teg ci loxo suñu bàyyi Taban Gueye. mu joxoon nu ko waa dëkk bi yëpp. tabaarakallaahu buñ ko nuyoo ba pare rek. ñu jaajëfal leen. ndokkeel leen. ndokkeel leen. ànd ak yéen mbégte ànd ak yéen mbégte mi. ci bis bi nga xamante ni. ñëwoon nañ fi daaw. ñëwaat fi ren. yàlla nañ fi ñëw. ay at yu bëree bëri amin at mu ñëw. dàq moroom mi nag. ci yokkute. ci ci ubbeeku. ci ubbeeku. ci yokkute ci wàllu yàlla. ci yokkute ci wàllu yàlla. ak i tamit ak i tamit. kilifa yi li ñu bëgg. kilifa yi li ñu bëgg. di ko doxal di ko doxal. bëgg njaboot bi. bëgg njaboot bi. teg ci seen tànk. teg ci seen tànk. chaque jour chaque jour. ñu ciy gis lu. ñu ciy gis lu. dal seen xel dal seen xel. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kilifa yi nag. kilifa yi nag. lii rek lañu ñu mënal. lii rek lañ ñu mënal. yonent sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni. yàlla sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni. àdduna. àdduna. ñu ngi koy tabax. dañ koy tabax. ci ñeenti mbir. ci ñeenti mbir. boroom xam-xam bi. boroom xam-xam bi. boroom xaalis bi. borom xaalis bi. ki ñu dénk. ki ñu dénk. moo xam luñ ko dénk ci wàllu diine la. moo xam luñ ko dénk ci wàllu diine la. moo xam luñ ko dénk ci wàllu àdduna la. moo xam luñ ko dénk ci wàllu àdduna la. waaye beneen bi. waaye beneen bi. muy kilal pot kilal saakoom di yalwaan. mooy kilal saakoom di yalwaan. ñu ne ñeent yooyu naka la demee. ñu ne ñeent yooyu naka la demee. mu ni bi ci njëkk. bi ci njëkk. xam borom xam-xam yi. borom xam-xam yi. bu ñu jëfandikoowul seen xam-xam. bu ñu jëfandikoowul seen xam-xam. yee ci nit ñi. yee ci nit ñi. kon ñi xamul daañu réer. kon ñi xamul daañu réer. waaye ñi ñu dénk. waaye ñi ñu dénk. ndénkaane boo nga xamante ni. ndénkaane bi nga xamante ni. mbiri jaami la. mbiri jaami la. bu ñu maanduwul ci ndénkaane ba. bu ñu maanduwul ci dénkaane ba. kon di nga gis. kon di nga gis. ku ëpp sa morom doole duma. di nga gis ku ëpp sa morom duma. ku ëpp sa morom amati. borom xam-xam yi borom xam-xam yi. ban dénkaane. ban dénkaane. la ñu am la ñu am. par rapport par rapport. ak nit ñi ak nit ñi. am yaxmiluhum. am yaxmiluhum. ala taati. ala taati. wa yanhawhum. wal yanhawhum. anil maasi. alal maasi. wa saa'ir al xabaa'is. wa saa'ir al xabaa'is. suñu daayira bi. sa mission. sa mission. fii wëgg. fii ak ña nga jiite ña nga jiite topp ñu yàlla topp ñu yàlla sa mission échec na sa mission échec na fii ak ña nga jiite fii ak ña nga jiite bàyyiwuñu def lu ñaaw bàyyiwuñu def lu ñaaw sa mission échec na sa mission bi échec na fii ak ña nga jiite fii ak ña nga jiite bàyyiwuñu def lu bon bàyyiwuñu def lu bon sa mission rafet na sa mission rafet na te suñu borom subhanahu wa taala suñu borom tabaraka wa taala te bi muy wax loolu bi muy wax loolu ñii la ciblé ñii la ciblé boo demee ci alxuraan boo demee ci alxuraan yàlla mu ngi wax ni yàlla mu ngi wax ni wal takun wal takun تكن منكم منكم أمة أمة يدعون يدعون إلى الخير إلى الخير mu ne na ngeen fexe ba ci seen biir. nee na fexe ci seen biir. am ci ñoo nga xamante ni. am ci ñu nga xamante ni. ñoo war a orienté nit ñi. ñañ ñoo war a nit ñi. teg leen ci yoon teg leen ci yoon. ndax diine. ndax diine. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si waxoon na ni. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si waxoon na ni. diine. diine du métier. du métier. kenn du ko dundee. kenn du ko dundee. politique. politique du métier. du métier. kenn du ko dundee. kenn du ko dundee. tasawuf fi dañuy wax ni. borom tasawuf dañuy wax ni. cosaanug yoon. cosaanug yoon. bi nga xamante ni. bi nga xamante ni. mooy jëmale nit ñi. mooy jëmale ni ñi. ci ëttu yàlla. ci ëttu yàlla. lii nga leen di xàmmee. ñii nga leen di xàmmee. boo leen fekkee ñuy jaamu yàlla. boo leen fekkee ñuy jaamu yàlla. ci fonk bi ñu koy fonk. te ñooñu. te ñooñu. boo demee bay roy. boo demee bay roy. royal ki teg tànkam. royal ki teg tànkam. ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci nga dégg ni. nit dina am xam xam-xam. liggéey sérieux boobu lay def kon jaamu na yàlla xanaa kon jaamu liggéey nee na mu wax la nag ni la la taalibe cheikh la taalibe cheikh la la te amul métier ko ñemee nekk góomu la ndax yéen waykat yi laay na ñun waykat yi a dégg ñu naan yow Moodo yow Moodo yoroo lu sa gopp bi sa gopp bi kurus bi kurus bi ak sa téere ak bi fii nga xaroo fii nga xaroo sa jàngu bi sa jàngu lii nga saxal lii nga saxal ñëpp foofu ba ñëpp foofu te nit nag te nit nag day niru kilifaam day niru kilifaam nga ni Moodo mu ni Moodo téereem bi la yor téereem bi la yor kon taalibe Seydi Hadji Malick nee na taalibe Seydi Hadji gàtt nee na nit lu mu gàtt gàtt war naa xam war a xam faratay jëmm faratay jëmm lan moo koy yëwénal lan moo koy yëwénal te loolu te moo ko jàngale moo ko jàngale ca page ku nekk nit ku nekk sa julli sa woor sa woor yi nga xamante yi nga xamante la koo defal nit mënu la koo defal war ngaa fexe war ngaa fexe ba xam ko lu ci yàlla bëgg lu ci yàlla bëgg wala yafaala fi'lan hatta ya'lam hatta ya'lam hukmallahi fii كنت طالب سيد الحاج مالك كنت طالب سيد الحاج مالك طالب شيخنا التجاني war na fexe war na fexe ba xam lu muy jaamoo yàlla lu mu ndaw ndaw nga nga teg ci lan nga teg ci lan ak sa gopp bi ak sa gopp bi taalibe cheikh taalibe cheikh taalibe Maodo taalibe Maodo day am métier am lu muy am lu muy liggéey Seydi Hadji Malick Seydi Hadji dafa toog ba ci yàgg dafa toog ba mu yàgg mu mel mu mel kuy jàmbat kuy jàmbat limu limu maanaam du ma li mu amul métier li mu amul métier waaye li dul xëy di gont li mu dul xëy di gont gars yi ne ko yow Modou li nga nekk xëy ak gont la mu ne ko yow Modou li nga nekk xëy ak gont la waaye du métier ne leen waaye du métier ndax jàngale diine la ndax jàngale diine la te diine kenn du ko dunde diine kenn du ko dundee waaye dañ ko war a dundal waaye ko a dundal nag kon nag boo jàngee ba pare kon nag boo jàngee ba pare da nga wuti métier da nga wuti métier kurus gi kurus gi soo ko ñëw soo kon jàng kon jàng wuti métier wuti métier jaamu yàlla yàlla ku nekk taalibe moo ku nekk taalibe Maodo ñett yii ñett yii dafa war a feeñ ci yow dafa war a feeñ ci yow feeñul ci yow feeñul ci yow sag taalibe sag taalibe des na des na Maodo yi waeli dun barru yaa ustaazu zindido ak seytaane bàyyi ci liñ nekk moo leen bàyyi ci liñ nekk ndax buñ ci noppee am lañ cey wut ndax buñ ci noppee am lañ pare ca du ñooñu nee na ñooñu nag. tarixa bi tarixa bi. daf leen di limaale daf leen di limaale. comme ndollent. comme ndollent. ci kii taxan ci kii taxan. xam nga loolu mooy lan. nee na loolu mooy lan. yow mi dem taxan yi. yow mi dem taxan yi. boo taxanee ba ñëw. boo taxanee ba ñëw. ba tekki sa say. ba tekki sa say. génn matt yu mag yi. génne matt yu mag yi. dina am ay zaaru matt yu ndaw ndawaan. dina am ay yu ndaw ndawaan. yu siy toppaale yu siy toppaale. waaye taxu la woon a jóg waaye taxu la a jóg. am na ñoo xamante ne na ñoo ni nag. noonu la ñu mel ci tarixa bi. noonu la ñu mel ci tarixa bi. umumul ula. umumul ula. yata jawwaluuna. yata jawwaluuna. yata jawwaluuna. yata jawwaluuna. xaalatan. xaalatan. mooy ñooñu nga xamante ni. nee na ñooñu nga xam ne. foo leen fekk dañuy wëlbatiku rek dañuy wëlbatiku rek amuñu benn objectif amuñu benn objectif te fu leen fekk tamit te fekk tamit dañuy wayu bajjiluna الأغنياء dañuy woy ba julun al ahniya yixinaahum yixinaahum lu fekk borom alal boo leen fekk borom alal di leen teel say dàll di leen teel seen dàll di la waxal lu rafet di leen waxal lu rafet di la waxal lu baax di leen waxal lu baax ngir enveloppe ba nga koy jox ngir enveloppe bañ leen di jox dugal ko ci poche dugal ko ci seen poche boo leen fekk tamit boo leen fekk tamit dañuy tilimal dañuy tilimal deru góor yi deru góor yi di def li tubaab di wax ni def li tubaab di wax ni diviser diviser pour mieux régner pour mieux régner am na ñoo xamante am na ñoo xamante ci tarixa bi ci tarixa bi ñoo ngi ci diine ñi nag ci diine di ko mbubboo di ko mbubboo parce que. parce que li ma wax ci commencement bi. nee na li mu wax ci commencement bi. mooy nekk. nee na mooy nekk dañuy jàng. dañuy jàng am tuuti xam-xam am tuuti xam-xam. jëfandikoo xam-xam jëfandikoo xam-xam bi jëfandikoo bu baaxul ci jëfandikoo bu baaxul moo tax moo tax mag ñi mag ñi wax la ni la wax la ni la booy laaj booy laaj laajal borom xam-xam laajal borom xam-xam waaye boo roy waaye booy roy royal borom jikko ju baax waaye royal borom jikko ju baax te suñu kilifa yi ñu yàlla waaye suñu kilifa yi ñu yàlla boole yàlla def na ay borom jikko yu baax la yàlla def na ay borom jikko yu baax la bare ay borom xam-xam ba bare ay borom xam-xam yàlla ñu yàlla may yàlla nañu yàlla may ñu mat leen njaboot ñu mat leen njaboot incha allahu incha allahu di jégalu nag di jégalu ci guddal bi ci guddal bi. xanaa namoon leen rek xanaa namoon leen rek. yàkkamti woon a ñëw fii yàkkamti woon a ñëw bu doon ba saafonte nag yéen ay kàddu. moo waral kàddu yu xaw a moo waral kàddu yu xaw a waaye ñu ngi jégalu bu baax waaye ñu ngi jégalu bu baax. di bu baax di bég bi fii. macha allah di ñëw di ñëw bi ñu ñëwaat fii. bëgg di bëgg bu baax di bëgg bu baax ci teeru bi ci teeru bi tabarakallah ak lépp loo xamante ne rek ak lépp loo xamante ne rek moo war mooy yéwénal bis yàlla bu mu nekk suñu mujjub daje yàlla bu mu nekk suñu mujjub daje yàlla nañ ko taxaw yàlla nañ ko taxaw dem ba dem ba njaboot gi seen biir dem ba njaboot gi seen biir di ko ànd di ko ànd ñu fekke lépp ñëw ñu fekke lépp ñu bokk fekke lépp ñu bokk fekke lépp di ko superviser di ko superviser di barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum wa rahmatullahi nangu leen ñaan amiin amiin الله لا إله إلا هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض